yàlla yàlla doon leer la wax ne dara gën a metti bokk ci biir te buñ koy def ca boole nee na bu gën a metti waaye bokk na ci tamit ndam ak yëg sa bopp ci biir loo bokk buñ koy boole la ca na sa bopp boole la ca waaye dafa am cëriñ la ciy séntu ndax Cees tey ji yaatu na li fi nekk ci ay jàkka ak yu may bari na te événement bi ñuy dëgmal ñëpp ko bokk tey jii mu dolliwaat ko nee sëriñ kon dañ koy ñaanal yàlla mu am ndam lii mu sumb waar la waxat moom daane ci bopp rek waaye ñëpp ko bokk mbas mi moom fi ne fi ne amul ma sax mu ma dem ba ci gën a kawe ci muy président ba léegi juddu tey ñoo ci yem lañ ci sentir kenn bëgg ci rek ku sañoon rek ñu génn fi tey tey tey ñu gën a gaaw waaye ki nga ne nag moo nekk ci kanam nag ñu ñëpp di ko xaar mu am ndam kii moom moo gën a sonn bu nit ñi nelaw moom du nelaw dox ak wax ak di xaar résultat toujours nangam yokk na moom tiit na moom waaw ñun ñëpp tiit de waaye moo ci raw moom mi ko jiite ndax na nam amee ñu ñëpp ko yëg waaye su échec amoon moom la loolu mooy ñu ma tax jiit sonn waaw fi ne bu amoon benn échec bu am moom la ñuy toog cee teg kilifa bu am amee nag ñëpp koy Sénégal jeex na moo tax yàlla ko yàlla may def si barke Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam li jeex it mooy yëg gi mu yëg ci wàllu lislaam tànn kilifa yi imaam yi di fi yónnee ci ñoom yii dañ ko doon yóbbu hôpital koo ko soxla fekk kon nag boo leen yóbbu ci ay kër loolu respect yëg la tamit loolu loolu xam ne ko loolu kon yàlla na yàlla taxaw. rawatina ñi nga xam ne dañuy nekk ci wetam di ko xelal xelal parce que xamuñ ñëpp mm-hmm. jotewul fépp. Mm-hmm. am loo xam bu nekk ci di ko wax ni ko nga bàyyi xel place tel la mm-hmm. seex seex tuum kooka dafa am bu rëy bu mu suyee ci fii nasu gi su ko xamee am na ko tax pour suufee jëfit am na ko tax te loolu xam nañ ko kon dañ leen di yàlla yëkkati yëkkati leen defal leen li ngeen bëgg loolu la ñuy ñaan suñu borom defe naa ni bi Sénégal amee indépendance ak léegi jaar bari ci ay gouvernement ay nanga ay lu fi xew ci réew mi nu ngi koy dégg waaye cër gi ñuy cëral moom te moom côté bi mu féete moom ci moom lañ ko yëg wàllu santé loolu moom mooy li am te nit ku nekk nag ki la boole ci dara boole def koy sant te gërëm ko te ñaanal te moom boolee nañ ci li muy def ministre de la moo fi yónnee bagage yi yónnee woon na fi ci ginnaaw loo xam ni koñ beeg yenn kilifa diine yi may gay yëpp am nañ seen laal ndax dafa xamoon a tax loolu moo amoon ba fi mu toll def naan chaque vendredi moom ngeen di waaw waa ji ma ci dañoo am boo xam ni boo duggee ci biir kii bi nga ko gis. ñooy taxaw ci buntu porte yëpp. yóbbu ko ay sel ay raxasu. ak i ak i yëf. des kër kii mën naa la mën naa la ci nga dugal ak kii. man ci marché yi war a jënd pour def ko. fi ni kii sax am na ay médecins yoo xam ne bu aju dañu ko indi. est-ce que waaw balaa kenn dugg ci barab bi. buntu bu ne da fekk ku taxaw. mu mbubbam di ko def. ndax dañoo jàpp ne xeex bi ñëpp ci war a jàpp waaw waaye dooleel na doole goo xamante ni bu dee ci wàllu bii moom jëndatuñ ko ren boobaa ba nga fi ñëw ak kon booba ak moo koy ral boppam waaw loolu da nga ko seereel ñëpp dañu ñu fi julee bari te kenn du dugg raxasu woo kenn dugg te woo mbaa kii bi la ba biir jumaa jeeg fépp su doolewaatee lu toll nii nag yàlla na ko yàlla taxawu tey ñaan balaa lii jeex yàlla na mbas mi jeex yàlla na ko yàlla def waaw mi ngi dégg bu baax a baax waaw kat moom suma xarit la bu yàgg li ñuy organisé ci wàllu si fii ci suñu màggal yi sag bi saa yi ñëwee bu ñu def point de presse moom mooy jiite moo tax saa bi ma nuyoo léegi fekk xàmme naa ko rek. <laughs> daan ñëw waaw waaw daan ñëw. nanu ndaw ñoom ñëpp xàmme naa leen ndax ñoom yàgg jox liggéey boobu. yaa baax rek yaa jaboote da ngeen da ngeen na su jàpp na su sëñ bi ni mu la waxee rek soo xam yàgg na ay at noog moom seq lépp di ko defal yëgu moom sax yaram bi dafa tawat yàlla ko yàlla fëkk waaye baara na nga xam ne sant nañu yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ministre président mu réussir ci feebar bii mu génn waaye yàlla yàlla yëkkati waaw suñu ko gisoon dañ koy wax encouragé mu téye leen yéen ñi sës ci moom encouragé ci suñu côté noonu ku nekk fa nga xam nekk rek nga xam mm-hmm. yéen ko fi jàppale mm-hmm. waaw loolu moo am ndax lu xew lu ne da ko nasu mm-hmm. ba tax muy jubal si fii te fii daa tegg moom fii benn dox la ci biir Thiès mën ngaa dugg Thiès ba génn boo la bon mu bi léegi ah kon suñu xol seet na kuy yàlla na fay leen dafa ñu toog ak sutura vraiment dégg nañu yàlla ko yàlla defal ndam yàlla ko yàlla defal ndam yàlla ko yàlla defal mu bëgg ci ci ci mi moom ministre bi dafay sore yàlla ci bokk ci jàmm ah? ay fonction yokk président ci moom bu baax a baax baax ci yéen ñi ko yéen ñëpp yàlla yëpp a baax baraka ñu ngi koy jàpp bu baax a baax eh, ci wàllum njaboot gi sëñ Cheikh mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi mm-hmm. ndax ñun dañoo féete fii ci kër gi waaye moom mooy jëwriñu liggéey bi lii danañ ko ko leeral bu baax a baax su ko defee ngeen fexe ba jokkook moom euh, lu ci mata dox rek incha allah lépp danañ ko dox mu rafet leen ñaanal daal ci turu euh, njaboot gépp rek sans euh, yóbbu seen maqaama ak seen dayo mu gën a kawe lii ngeen di xeex muy mbas mi it yàlla na ko sans borom jële ci àdduna bi ngeen am ci ndam lu kawe kawe waaw bëgg nañ lool lii moom day wane rek maanaam yitte ju ngeen jox sëriñ bi ak orma ju ngeen ko jox te naka jekk it nii rek ngeen doxee ak moom waaye daal moom moom lu ngeen ko jëfal rek sama borom dana leen ko fay ndax eh, wax na ba tàyyi nee na moom eh, li di li di ab liggéeyam mooy lu jëm ci jaam yi daanaka tabaxi jumaak tabaxi kër ak yooyu yëpp mën na ko waaye ab liggéeyam daanaka dafa gën a jëm ci taxaw jaami yàlla yi dimbali leen ci seen ajo àdduna ak yu ni demee kon nag di ngeen koy jàppale ci loolu rek ndax moom eh, njaboot gi moom ñaari eh, ñaari pouvoir yi fi nekk ñoo ko séq pouvoir temporel bi ak eh, spirituel bi ndax sëriñ Touba dafa mas a wax kenn ci mag ñi ku ñuy wax mbaaxaan keroog ba mu ko fekkee Daaru Manaan eh, booba fekk ak réeroo am am yu ñuy jiiñ Sëñ Tuubaa keroog bañ duggee ci néeg bi ba def seen yëf yi ñuy def ba dal am sëñ bi dañu ko mbaaxan dama bëgg ngeen xam ne àdduna mbiir mbitti la mbiir mbitti la mooy saayiruhu lil umaraa yi waaye wa baatinuha lil awliyaa ne ko saayir si àdduna Eh, maanaam yéen ñu yor wàllu ko àdduna yéen a ko yor yéenay doxal bi waaye baatin bi nag ñun ñoo ko yor góor yàlla yi ñoo ko yor kon bu ñu àndandoo rek defe naa lépp lu ñuy xeex dañ ko mën a daan ci kattan ko yàlla yàlla na yàlla yàggal jëf bi yàggal taxawaay bi eh, waaw tamaa naa ñu sant bu baax rek kon xanaa ñu yemale foofu kàddu daa koy jërëjëf baal ñu fàttali ñu tur bi eh, waaw imam Aliou Ndiaye alamin nañu sant yàlla bu baax a baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ginnaaw yàlla euh, kaddu yi nga xam ne moom lañ ko bëgg a joxe pour ngeen jotal leen ko ministre bi du kaddu leen lu du kaddu gërëm ak sant ndax euh, ki nga xam ne mu ngi lay fagatal jàngoro te jàngoro ñëpp xam nañu ne fa mu mujjee doomu aadama du lu gën ci moom kon bu ñëwee tey jii indi fii yi nga xam ne mën nañoo aar ginnaaw yàlla ndax ay aar waaye nag il faut mu am fu mu ko jaar ci ay sabab sabab yooyu nag mooy yii ngeen indi tey jii eh, ngir ñu fas ci yéene ci ñu fas yéene ko jëfandikoo ngir yàlla subhanahu wa taala musal ñu muccal ñu ci jàngoro bi nga xam ne moo fi tàbbisi eh, ci sama xutba sax am na ñu ma ci defoon ba bindoon ci waaye alhamdulilahi rabbil alamina ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ko ñaanal yàlla nag li nga xam ne moom la bëgg yàlla na ko yàlla defal bi jaan Mustafa sallallahu alayhi wasallam yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér gu yaram te li nga xam ne moom la jortu yàlla defal ko ci ndam comme doomu Cees coom doomu Cees la te wax dëgg yàlla kenn du dàq mu jëm ci àll ba waaye na nga dàq na jëm ca kër moom nag def na loolu alhamdulilahi rabbil alamina sant nañ ko gërëm nañ ko ndax waxtu yi dafa xaw a xonc moo tax ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax da ngeen da ngeen jëf leen sant yéen tamit euh, teewaay bi nga xam ne ñëw ngeen fii def ngeen seen mission nam mote nañ leen ko yéene woon daal wax dëgg yàlla matal ngeen lépp yal na yàlla matal seen mbir yal na yàlla defal seen mbir yàlla barkeel lépp